jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne ci seen njàngat làmb ma ànd ceeg borom mbég meeg taar mi sëñ Basirou xale bi nga xamante ne du ndékki waaye dina am añ añ bu am doole reer reer bu am doole maa lay siyaar bu baax a baax sëñ Bas borom mbég meeg taar bi. <laughs> Baye maa ngi lay nuyu di la di nuyu mbokki internet yi yëpp. ñëpp ñuy suivre wasaare lamb rek maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di nuyu Adama euh, di nuyu kilifa gi nuyu ñëpp ñi nga xam ne sàmbe ñu ngi ñuy bàyyi xel. boo koy Serigne Bassirou borom mbég mégtaar mi mbokk yi ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax a baaxa ah, di rafet lu ànd bi ngeen ànd ak wasaare làmb ndax seen mbégte rek mooy suñu bànneex te saa suñu sañoon bu ñu xëyee rek di dab li nga xamante ni mooy seen bànneex ñu leen di jaajëfal bu baax a baax. rawatina yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi ci diaspora bi di béggee wasaare làmb fu waaye nekk ak foo munti nekk di béggee wasaare làmb rek ñu ngi lay jaajëfal sëñ Bas ñu ñëw ci journal bi nga xamante ne mooy suñu làmb ñu ñëw ci jeudi 9 euh, avril 2020 euh, ñuy wax ci li nga xamante ni mooy suñu papa wala suñu kilifa euh, Moustapha Diop Moustapha Diop nag mooy ba borom OK Africa promoteur boobu nga xamante ne moo organisé woon diggante Modou ak ak Eumeu Sène euh, combat royal ba fële ci stade Léopold Sédar Senghor ana lu journal bi wax ci moom. waaw sunu papa Moustapha euh, Diop ñu ngi koy nuyu euh, di ko ñaanal jàmm moom comme ni nga ko waxee rek moom moo tëggoon combat royal boobu diggante Modou Lô ak Eumeu Sène mu nekkoon combat bu amoon jeexital nag jeexital bu xaw a yéeme parce que combat bi niñ ko séentoo woon dëgg-dëgg ci côté finance. Mm-hmm. demewut noonu. liñ jàppoon ne tey combat bi dana ko génne ci côté koom génnewu ko ba amoon na ci ay gàllankoor moom gàllankoor yi mën nañ ci citer lu ci mel ni reliquat sponsoring yi mu yoreloon mbëri comme Eumeu yore loon na ko cinquante millions euh, Asafurla vingt cinq millions Modou Lo aussi yoreloon na ko vingt cinq millions mu nekk au total de cinquante millions waaw euh, ci cinquante millions yooyu boo xoolee bi làmp ji jeexee euh, toog nañ ab diir bu yàgg fayu leen ko ba fan yii rek Euh, ci mois de mars bi ak avril bi ñu dugg ci lay soog a euh, tàqalikoo ak Modou Lo ak Eumeu Sène fay leen lim leen deseloon euh, mu nekkoon combat boo xamante nii xawoon na metti ci moom trop nag xawoon na metti ci moom parce que cinquante million koo ko yoreel làmb ju jeex nga war a compter say bénéfice conté woo bénéfice lu dul di conté ay bor yoo war a fay boobaa day xaw a metti trop mais nag masion spéciale parce que honoré na ay engagement mm-hmm. mooy yoreel na leen fay na leen te aussi mbër yi ñu compréhensif lañu ku la yoreel vingt cinq millions génnoo ci média yi ŋàññu ko. Mm-hmm. waxoo ci wax ju ñaaw defoo ci jëf ju ñaaw donc foofu aussi dañuy naan Eumeu seen ak Modou mention spéciale mm-hmm. mais mention spéciale à Eumeu Sène mm-hmm. moom mi nga xam ne dafa ñàkk te ñànkiwut parce que aussi ñàkk lu mel ni couronne rek euh, bouleversement la boo xamante ne nii dalay bouleversé rawatina nga am ci ay bor yoo xamante ne nii tey war nañ la koo fay te fayaguñ la ko boo ñànkee rek di nga laaj ci anam boo xamante nii du nice mais ba léegi nag franchement dégguñu ko fenn mu ŋàññ Moustapha Diop loolu rek dañ ko ciy sant di ci di ci di ci joxe exemple nag ci ñëpp yoo xam ne ay nit bu ñu àndee di liggéey collaboration la war a nekk collaboration boo xam ne nii ngor moom moo ko war a euh, lal mm-hmm. te ci biir ngor boobu ku ci nekk da nga war di sàmmoon sàmmoonteeg àq ak yelleefu sa morom. ba doo ko déstabiliser mais aussi doo ko doo ko doo ko sonal ci benn anam. Mm-hmm. man moom dama koy féliciter bu baax a baax a baax suñu papa Moustapha Diop ndax euh, def na loo xamante ne wane na ni euh, nit ku dëggu la. Mm-hmm. parce que ay nit boo waxee teeg ñoom la nga waraloog ñoom ci contrat mm, nga dem ba ba ba ba jamono jàpp la te teewut. saa su ne sa xel a ngi ci ñoom euh, nga def li nga war a def ba ba wàccook ñoom mënuñu lu dul di la sant di la gërëm li nga wax ci mbëri sànq tamit wax nga wax bu am solo ci ñaari mbëri muy Modou Lo muy Eumeu Sène euh, ay jàmbaar lañ parce que ay góor lañ waaye sëñ Bass contrat nag dama jàpp ni léegi la am. Hmm. waaw ndax bu njëkk suñu suñu kilifa yi wala suñu maam yi euh, kàddu la ñu amoon. buñ ne la sëñ Bas bu dimanche dinaa la jox lii voilà bu da moom incha allahu rabbi bu dimanche jotee boo ñëwee ñu jox la ko contrat nag léegi la am waaye tamit nit ki lépp looy mën di def rek war ngaa mën a sàmmanteeg sa kàddu ñu koy jëfal bu baax a baax a baax di féliciter Eumeu Sène mm, ci li sëñ Bas wax parce que ñàkk ba pare ñànki moom yàlla nañu ci yàlla musal waaye moom ñàkki na ñàkk na ba pare waaye ànd naa ngorom kenn déggu ko kenn xamatul ko dara ba moom mii nga xamante ne sama papa Moustapha Diop est-ce que sëñ Bass dina tëggaat làmb waaw am nañ ci yaakaar nag parce que xàddiwut bu ñu déggee ni mu waxee rek mooy bàyyeegut làmb ji hmm. mais buy tëggaat aussi dana ko teg fu leer naañ hmm. parce que ku ndóbbin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw te it euh, mbir re euh, lor la loraat la boobaa teyeef lay doon hmm. te dégg nañ ko bi mu leen fayee ba pare nee na woo naa staff Modou waxtaan naa ak ñoom ba juboo ak ñoom ci kàddu woo naa staffu Eumeu Sène wax naa ak ñoom ba juboo ci kàddu mais loolu ñun li ñu ci mën a déggee mooy face à bu mujj bi waroon a am ci diggante Eumeu Sène ak Modou Lo mm-hmm. te amul ba léegi donc bu waxee ne wax naa ak ñoom ci kàddu ba juboo rek c'est parce que dañoo bëgg a teg face à boobu te comme que mu ngi xalaat ci mottali face à boobu nga xam ne ci contrat la woon kon kooku pareegut pour bàyyi làmb mm-hmm. parce que mu ngi dugalaat loxoom ci làmb ndax face à ay moyens ñoo koy def aussi ay moyen ñoom ñoo koy def boo xoolee la fay nekk lépp ci côté logistique moyen moo koy def te kooku mu ngi génnewaat même bu dee ab dërëm sax bu muy defaat pour tëgg face à face boobu loolu mooy wane ne bàyyeegut làmb mais lu mu ciy def lu ne dina am fu leer fu mu ko teg parce que nag ab promoteur la mais aussi businessman la boo xamante ni euh, du bàyyi business am parce que dafa perte. Mm-hmm. mais pertement boobu loolu day koy jàngal lu baree baree bari pour ëllëg mu mën a gañewaat ci leneen li muy li muy dugg. sëñ ba seetlu naa ci promoteur yi képp kuy dugg ci làmb rek euh, sa sa bis bu njëkk. doo ko fàtte ba ilaa yomi din abadan gis nga keroog sama papa Jax bi ñu toogee di waxtaan ak moom la mu wax moom la perte ci làmb loolu man su ma ko pertoon sama sama sama sama dibi su ma pertoon rek damay génn yaalal leen bàyyi leen génn dem waaye làmb loolu la loolu làmb la ñu <laughs> bàyyi ma bas bàyyi ma waaw ah, kenn déggu ma moo taxit ñoom laay baa leen di béggee bu baax a baax a baax waa am joor gaa yëpp baa leen siyaar bu baax a baax a baax sëñ bas ñu ñëwaat fii ci ki nga xamante ni mooy gaynde Euh, doomu géejawaay bi euh, doomu mari fara bi euh, le fils de Double Less am na sax ñoo xamante ne jamono ji demoon nañ ba tuddee ko la son excellence metre Balla Gaye 2 ngir jaloore gi nga xamante ni def na ko ci làmb sunu làmb def ko ci xët gi ana lu mu wax ci moom waaw li mu wax ci Balla Gaye 2 moom mooy le bourreau de la génération 90 Euh, maanaam génération quatre-vingt-dix bi nga xam ne mën nañ cee jàpp Mouhamed Ndao Tyson hmm. mën nañ cee jàpp euh, Yaxya Diop Yékini mën nañ cee jàpp Mouhamed Ndao Tyson euh, mën nañ cee jàpp aussi ci mel ni ñooñu ñoom la ñuy jàpp génération quatre-vingt-dix ba ci Bombardier ba ci Baboy hmm. ci la bokk mais génération quatre-vingt-dix moom boo xoolee hmm. Balla Gaye dafa bokk ci ñi leen teg li leen gën a métti ci seen carrière muy Mouhamed Ndao Tyson bi ko Balla di daal dafa nekkoon ci digg dooleel. Mhm. te combat boobu Balla nekkutoon favori. Mhm. Yaxya Joob Yékini bi ko Balla Gaye dee di dafa nekkoon ci digg dooleel. Mhm. te combat boobu Balla nekkutoon favori. Euh, digganteem ak Moustapha Guèye aussi. Balla ak Moustapha Guèye certes mu doon génn. ñu nekkoon presque ci fin de mais combat ñu bëri ñu ngi doon tiital Balla Gaye parce que dafa tase daanaka mu bëreekat boo xam ne jeexalul. Euh, parce que Moustapha Gueye mënoon a continuer ma carrière. te mm-hmm. technicité baa nga fa woon te fooyul boppam entraînement baa nga fa woon boo xoolee euh, euh, ba léegi nii boo xoolee kii bàyyiwul boppam. Mm-hmm. donc Baboye boo xoolee bi ko bi ko bi ko Balla Gaye di daan. mënoon a Balla moom mooy favori. Mm-hmm. ñooñu ñëpp Balla bëri nañ ñoom daan leen ci biir bëre ba pare ñu ci bëri moom moo leen pousse à ce ñu génn làmb ji. donc moom. boo na ci benn xaaru génération boobu. foofu mhm. boo xoolee li fi journal bi fasal mooy loolu ba pare indi waxi père Omez ak père Gandiagne. Mhm. Omez moom li mu wax mooy euh, Balla Gaye dafa dominé lamb ji. Mhm. Balla Balla Balla dafa dominé lamb ji wala dafa bëggoon a dominé lamb ji. donc te loolu rek la parce que ñoo ñoo fi nekkoon ñu fi mën ñoo ñoo fi nekkoon génération bi nga xam ne ñoo téye woon lamb ji. moom bi mu ñëwee ak génération. mën naa ne bu porté wu volontaire sax. Mhm. mais moom mooy ci ay volontaire moom ci la leen poussé pour ñoom ñu mën a génn. Mhm. seen génération mën a mën a mën a implanté wu. boo xoolee Père Ngagne li mu wax mooy euh, ce n'est pas une mince affaire. du mhm. affaire bu sew du affaire bu ndaw ñu baal la def. te làmb bi mu doonee làmb ba léegi nii tey booy jël performance yi gën a rafet ci làmb. boo jëlee parce que aussi danga doon gis ay tenoor ay mbër yu mag di daanante seen biir kii day daan kii kee daan kële mais da ngay gis Balla dafa ñëw raafal leen raafal leen ñoom ñëpp génération boobu muy Baboy muy Tafa Gueye muy ndaw Ndao Tyson Yékini ñoom ñëpp da leen a raafal indi génération imposée. te ku ci nekk daana na sa morom. ni daan na euh, Bombardier ñetti yoon daan na Baboy euh, su ma juumul moom it ñaari yoon xaw nga ko daan euh, la daan Baboy daan Tyson ñaari yoon Bombardier daan Tyson moom it ñaari yoon Balla gay ñoo boole leen ñoom ñëpp ramassé daan leen. champion la waaye wane ne doomu mbër la nag. mais foofu am na exception nag ci génération boobu parce que bul fàtte Bombardier. Ah. Bombardier rek moom mooy rescapé bi ci génération boobu moo ci daan Balla Gaye 2 donc euh, lu mat nag daa amut rawatina lu nit di def comme nit moom matul sama lu nit di def euh, tubaab bi sax da koy wax l'œuvre humaine n'est jamais parfaite euh, moom moo tax génération ba boo xoolee mën nga ne Bombardier moom moo ci rescapé bi moom moo ci bëri ak Balla Gaye de daan Eumeu Sène non Eumeu Sène boo xoolee ci génération ñoom Balla Gaye ci la bokk ci la gën a jege sax mm. ci la bokk parce que dafa dafa teel a dugg ci làmb mm-hmm. mais ñoom magante wuñ ñoo bokk même génération bi. Gris Bordeaux Balla Gaye 2 Eumeu Sène euh, ñoom Tapha ñoom ñoo ñëpp ñoo bokk même génération bi seen rawante bariwut. Euh, jërëjëf sëñ Bass kon ñu ñëwaat ci beneen xët bi euh, ñu jóge ci journalu jeudi bi jëm ci journalu vendredi bii nag nekk vendredi tey 10 avril 2020 journal bi di suñu làmb xët yëng. ci xët gi euh, ma gis ci ki nga xamante mooy suñu papa Ipo Ngare sama papa Ipo Ngare nag dafa mel ni daa wax ci jëm ci ñaari combat diggante Modou ak Ama Balde euh, moom lan la ci wax. waaw père Ipo li mu wax ci komba boobu mooy euh, le contexte ne le permet pas donc combat boobu mënta am ren parce que contexte bi moo ko moo ko dul maye. Mm-hmm. li mu soulevé nag bëri bokk na ci jàngoro ji nga xam ne sant bii nii. moom moo implanté wu ci àdduna bi sax di sonal nit ñi bokk na ci li nar a yàq combat boobu mais aussi euh, Luc Nicolas bi nga xam ne mu ngi ci loxo yoon te Luc bu génnoon combat bi du mën a nekk ndax situation bi mu fi fekk ne ñaari mbir yooyu moo présenté wu mooy Luc mu ngi ci loxo yoon jàngoro ji mu ngi fi donc combat bi mënut a nekk ren te loolu boo xoolee suñ jàngat bi weesu joxe woon nan même même même argument boobu. Mm. combat bi mënul nekk parce que facteurs yi tax combat bi mënul nekk dafa bëri bokk na ci ñaar yi mu lim mais aussi lim na beneen mooy tey même bu jàngoro ji dañoon mm. Luc Nicolaï génn ñu war a tëgg combat bi aussi il faut mu am temps mm. pour mën a wut ay sponsor pour mën a jàppaat date préparé waat parce que combat bu mag la du combat booy sorxo sorxo te loolu aussi xel nangu na ko donc loolu rek li muy firndeel mooy combat bi moom képp ku ci wekkoon sa xel ren jàppal ne xëy na déwén mais ren moom mënatul a nekk. Euh, ñu di ko ñaanal bu baax a baax a baax suñu papa pongaar yi moom it dafa mel ni euh, la ñu waxoon ci ci mbiru arbitre yi moom it yéey na ci yàbbi. waaw ci digganteem ak Sitor Ndour. Mm-hmm. wax na ci parce que nee na li li mu jàpp ne moo boole Sitor ak euh, CNG. Mm-hmm. wala arbit yi ak CNG. Mm-hmm. du xaalis xaalis boolewu leen ay assurance ak yooyu moom mën na koo gëm. mais xaalis boolewu leen parce que ni Sitor mel ci xaalis. tax mu xam ne xaalis mënu leen a boole ndax Sitor day ñëw xam nga kuy gagné dix mille francs ci ci ci ci combat. Mm-hmm. te da ngay financé dix mille francs ci combat wala da ngay financé quinze mille ci combat parce que sa passe aller retour. Mm-hmm. boole ceeg nee na làmb bu mu leen fekk dina jox ñoxo ko bàyyi mille dina jox ipongaari cinq mille. Mm-hmm. donc dix mille ya muy gagné kon joxe na ko. boole ceek paasu aller tour am ak yooyu yenn fere yi muy def kon. kooku ni muy génnee xaalisam nga xam ne xaalis bi ci poos bi nit ñee ko bàyyi ci moom. Mm-hmm. kooku xaalis du ko booleeg CNG. Mm-hmm. mais gëm na ne affaire assurance ak yooyu moom lay doon mais aussi mu saako ci Alioune Sarr à que mu génn euh, ci ci bi muy bi muy muy bi muy bi muy gën. Mm-hmm. avant muy trop tard parce que comme gis na ne ñenn ñaa ngi koy ŋàññi te njabootu Alioune Sarr sax tey guddi yi euh, bëgguñu lu dul Alioune Sarr génn ci làmb ndax critique yeeg yooyu. donc dafa war a génn par la grande porte balaa affaire yi di ngeen di compliqué. jërëjëf sëñ Bass am na solo lool fii tamit ñu gisaat ci xët bi ku mel ni Gris ak waa Fass euh, gis naa fi Forza euh, Lac Rose Gris Bordeaux ana la ci Gris wax. waaw foofu journal suñu làmb bi moom moo indi ay ay ay ay jàngatam teg mooy tey Fass dañoo nekk ci benn situation bu xaw a compliqué mm. situation bu xaw a compliqué bi mooy tey seen ténor yi euh, pour ñu génn. problème la pour ñu réussiraat waat écurie bi nekk au devant de la scène problème la euh, soulevé na ci ku ci mel ni Gris Bordeaux euh, troisième tigre de Fass parce que bi ko Balla Gaye 2 daanee ba léegi boo xoolee dafa am problème mu adversaire problème mu adversaire bi nag du ñu ne adversaire yi ñoo ko ñemewut wala leneen mais problème mu adversaire boobu ni ñu koy comprendre mooy ñi koy laaj. bëggu bëggu leen. waaw te moom ñi muy laaj. gisagut promoteur bu ko tëgg. mooy tey Tafatine boo ko joxoon ba euh, kii mu bëreeg moom loolu derbi la boo xamante ni derbi Medina la. nit ñi bëgg nañ ko. Euh, tey Gris Bordeaux boo ko joxee Lac de Guiers bëgg na. amateurs yi bëgg nañu ko. tey Gris Bordeaux boo ko joxee Reug Reug Reug Reug bëgg na Gris Bordeaux. donc Gris ñàkkut ay adversaires yu war a mën a bëreel. Mm-hmm. mais lii problème bi mooy Gris Balla Gaye 2 la bëgg pour Balla jox ko revanche am. te revanche am ak Balla Gaye tey mën naa ne du ma ne Balla bañ na ko parce que dégguma fenn fu Balla waxe ne bañ naa sama revanche ak Gris Bordeaux mm-hmm. parce que euh, ci li may dégg ci ay waxam mooy bu ñu ko joxee avance Gris Bordeaux mu jël ko mais promoteur bi ko tëgg mooy problème bi donc moo tax moom pour mu génn ci situation bi mu nekk day am fu mu dépendre mm-hmm. tey boo xoolee Forza aussi euh, ay difficulté la nekk parce que depuis combat am ak euh, Abdou Diouf mu waalo mm-hmm. ba léegi nii amaatagul combat moom moom dañuy ne ay ay adversaire ñoo koy daw le journal bi wax mais adversaire am ñi mu war a bëreel ñoom ñoo bëggut a bëreek moom parce dañ koy daw journal bi ne kon dañ koo ragal kon moom it mu ngi ci beneen situation mm. Lac Rose ma fa nekkoon nekk euh, jeune bi nga xam ne Fass amoon na ci moom yaakaar de trop moom aussi gis nga ni mu demee mm-hmm. Lac Rose euh, situation euh, de santé moom moo tax mënatut a continuer carrière am mm-hmm. feebaru jeune boobu mm-hmm. donc kooku aussi mu ngi ci situation bu compliquer ki ñu fa gis en tant que mbër boo xamante ni mën na téye équilibre bi ci loxoom mooy Gris 2. Hmm. loolu la ñuy wax Gris 2 euh, malgré jóge na ci défaite euh, ci digganteem ak rëg-rëg mais aussi combat la boo euh, mbër la boo xamante ni tey mën naa téye équilibre bi ci loxoom. Hmm. mais man du ma ne Gris rek parce que Serigne Ndiaye mu nga fa. non laa bëggoon làqar ci sama lañ moom laa bëggoon wax Serigne Ndiaye 2 fu ñu koy teg. mu ngi noonu Serigne Ndiaye 2 tey bokk na ci champion yi Fass war a gën a am yaakaar. Hmm. parce li tax mooy dafa cumuler les deux. tey ci lit avec frappe bi mu ngi ciy wane ay preuve am mm-hmm. te day jox combat gëdd bi muy laaj mais aussi ci lutte sans frappe bi gis nga ko performance yi mu ciy def di tegale ay galaa di ko jël di tase ak ay naataangoom yoo xam ne ay mbërantaan lañ di ñàkkanteeg ñoom ñii buñ ko daanee fii mu ko ji leen feneen mm-hmm. fayu donc loolu mbër bi mu ngi ci moom gabari bi mu ngi ci moom te mu ngi liggéey te am na encadrement parce que Moustapha Gueye moo ko jël di ko encadré kon mm-hmm. kooku mën naa ne euh, man bu ma doon wékki yaakaaru Fass dama naan Euh, Serigne Ndiaye de moom moom waa Fass mën nañu waaw mën am ci moom yaakaar. Hmm, parce que gis naa ci combat mook Franc. Mhm. bi mu ñëwee arène nationale dix millions yu jag si Franc moo ko mu toog lu yàgg ñëw. Mhm. bi mu ñëwaatee am Franc. Euh, ñaaxaar ñaaxaar. Mhm. Euh, jàpp Franc daan ko. moo lay wan ni am na gëm-gëm boo xamante mu ngi ci moom. xale la boo xam ne ku ko jàppale mu dem moom. dëgg la dégg naa ni sax jël na combat bi nga xamante moom. diggante moom Sokocim. Mhm. waaw Sokocim champion la. waaw combat bu neex a ngi noonu it du ñàkk jàngat ñu ñëw fii détaillé ko ba mu yaatal. waaw nañ ci waxtaan incha allah. Euh, sëñ bas kon loolu lañu amoon ci xët gi nga xamante ni moom lañ ko am ci suñu làmb muy waxtaan boo xamante ni suñu làmb jëmale woon na ko ak ñi ñi ñànk làmb ndax làmb moom euh, promoteur la waaye amateur la fans club la mais micro micro rek. ñëpp ci làmb lañ bokk làmb moom moo nekk loo xamante ni dafa bëri ay branche léegi tey mu waral ñu war a waxtaan ci combat kenn muy diggante Modou ak Ama Balde euh, chaque fois dañ ciy waxtaan mais tey dama buggoon ñu jël Ama Balde sëñ Bass waxtaan ak moom li ñuy waxtaan ci Ama mooy euh, avantage yi mu am ci combat diggante moom Modou yan njariñ la ci am lan moo ko ci mën a lor ak ak daan Modou Lo fan la mën a yóbbu xale bi di Ama Baldé Ama Baldé yan avantage la am ci combat bi. waaw euh, tey wax ci Ama Baldé baay ji li jafewut. Mm-hmm. parce que digganteem ak Modou Lo du sens mérite la. Mm-hmm. tey technicien yu baari dama naan fi ma leen di reprocher. Mm-hmm. mooy mbër doo doo xayma dooleem doo xayma xam-xamam doo xayma euh, technicité mais da ngay day nekk loo teg sa bët loo gis loo làmb loo daj bu boobaa ci lay gën a neex bu boobaa njuumte li du bari donte njuumte mënta ñàkk ci analise mm-hmm. parce que tey Ama Baldé boo xoolee parcours am xool ay kombaam ni mu ko bëree mm-hmm. xool difficulté yi mu am ci làmbam rek pour nga xam Ama Baldé ban ban ban situation la toll ci làmb day yomb euh, parce que tey bu ñu njëkkee ci ki mu def référence mm-hmm. ki nga xam moom la def royuwaay mooy papaam papaam Faalaay Balde moom la def royuwaay parce que dégg nañ ko bi muy waaj a bëri ak papa Sow mu ne ñaari defet yi sama papa amoon te yemoon ca. Hmm. man ci sama ñaari defet yooyu laa bëgg a yem bëgguma koo dépassé. parce que gis nañu ko papaam euh, père Faalaay Balde 137 victoire la am ci deux défaites. Hmm. donc mënoo lim champion te tuddoo ko. loolu loolu vrai champion moo koy def. 137 hmm. victoire nga am ko am ñaari défaites rek. loolu champion dëgg dëgg la. neuf combats. Euh, mu ngi woon ci neuf victoire bokk. deux défaites. Euh, donc euh, non astafurlah mu ngi woon ci douze victoire je pense douze victoire waaw. deux défaites ci la nekkoon parce que boo xoolee guy gi moo ko daanoon. ak nes boobu fekk na mu daan ay champion yu bari. bi mu bëree ak Papa ba pare ci la ñu gis ne gone gi li muy doxaale mu ngi koy confirmer mooy deux défaites yooyu noonu mu bëgg limité wu mu ngi koy confirmer parce que bëgg na adversaire bu mu am bu ne rek mm-hmm. day njëkk teg ci côté droit am mooy sama defet defet yi sama papa am te ma jot a am ñu toll noonu bu duma ko dépassé mm-hmm. muy motivation ci moom beneen bi mooy champion bi papaam nekk dafa war a nekk champion bu raw loolu mm-hmm. donc boobu aussi beneen motivation lay doon ci moom mu am ay combat yu bari nag yu mu adopté ak la manière tey Papa Sow euh, digganteem ak Modou am na ay atu yu bëri yu Ama Baldé am benn atu bi ci njëkk mooy zone bi Modou Lo nekk Ama Baldé dafa yàgg sonal ay mbër muy parcelle. parcel ni mu leen sonalee mooy euh, daan na fa ku ci mel ni Baye Pël. daan na fa ku ci mel ni Papa Sow. daan na fa ku ci mel ni Zos. daan na aussi ku ci mel ni Balla Diouf. nga xam ne euh, mu ngi woon mu ngi woon Fass mais. bokk na ci ñi encadré Modou Lo. waaw lépp léppam presque parcelle la. léppam mhm. donc loolu ay atu yoo xamante ne nii mën na koo wéyaale parce que Papa Sow ànd ak Modou Lo nekk euh, nitam ñi bokk di di bokk lépp am na fu mu jaar ak Ama Baldé génn ci ci ndam Balla Diouf mi nekk entraîneur am nga xam ne bokk na ci ay entraîneur am bokk. di ko jàppale ci ay contact ak yu bari ay entraînement mu Ama daan na ko ak la manière. tey bàyyi Peul mi nga xamante ni poulain wu Modou la léppam la tey Ama Balde daan na ko. avant mu koy daan sëñ Bas dogguma la mais Ama Balde dafa bëri kombaam daan diggante moo ko su Ndiaye toog plateau moo di ko seetaan mu ne waa parcelle ñoo ma tax a jóg. wax jooju nag xaw ma lu mu ci lu mu ci und waaye lam waxoon ba tey jugu ci ma ngay jàpp mbëru parcelles yi di daan benn par benn benn par benn ba daj ki nga xamante ni moom la buggoon ndax boo déggee ci biir waxam nee na Modou Lo bu yoroon bu bu bëriwul ak man nekk mag sax yor kaan di dox dinaa këf kaan bi ba ma ko mu daanu. parce que rêve la ci moom. te dégg naa ko fois bu waxee mu ne parcelle damaa nekk ak ñoom euh, dañu nekk mbër ñoo xamante ni xamuñu ma. te bis bu ma bëree ak Modou ba pare dinañ xam man maay kan. Ama Baldé dafa mel ni am na leneen loo xamante ni mu ngi ko bëgg a wane mais jëmalewu ko ci Modou Lo waaye jëmale na ko ci parcelle. waaw xam nga Ama Baldé dafa wax lu am solo. mooy waa parcelle xamuñu ma. xam nga am na benn bindkatu chinois bu ñuy wax jour euh, boo xamante ni da bindoon na benn texte quatre cent cinquante avant Jésus Christ. texte bu yàgg muy wax ci art de guerre combat. mu ne euh, tey adversaire bi nga xam ne nii da nga koo xam. te xamu la. bu ngeen di jàmmaarloo yaay ëpp sens. Mhm. pour pour gañe ko. adversaire bi nga xamante ne ni tey dalaa xam nga xam ko bu ngeen di jàmmarloo boo amee sensu gagner ko it dina am sensu gagner la mhm. mais adversaire bi nga xam ne nii xamoo ko xamu la. Mhm. adversaire boobu noonu moom à tout moment ku ci nekk mun ngaa perte. donc loolu boo xoolee day nekk ay wax yoo xamante nii dañ koy gisaat ci euh, waxi Ama Baldé yi ñoom xam naa leen te xamuñu ma loolu mooy wane ne saa yu bëree ak ñoom euh, li ci ëpp mën nañoo am lu leen naqari te loolu firnde bi mooy tey boo xoolee bi muy bëree ak euh, Baye Pël bi muy bëree ak Zos sax laay wax le 4 avril mu ngi daan Zos ci une minute 17 secondes ci tente ba. Hmm. une minute 17 secondes nga xool ak manière bi mu daanee Zos. Hmm. nga xam ne tey Zoss bokk na ci raar mbër yi nga xamante ne nii doo ko def action rek daal ko ci. Hmm. c'est très rare nga gis Zoss nga def ko benn action rek daal ko ci mais day nekk mbër boo xamante ni dangay ngay am ay avantage ci biir combat ba pare mu combat changé waat ci biir. Hmm. donc il faut nga sonal ko soog koo daan ñu gis combat ak Baye Paul aussi ak manière bi mu ko bëree. Hmm. attaqué adversaire am mayu ko dara gis nga Zoss noonu la attaqué Zoss mayu ko dara combat am yëpp day attaqué Baye Paul. mu attaqué Baye Peul mayu ko dara Baye Peul def ay sorties délibérées yoo xam ne génn na. Mm. dellu siwaat jël na ay coups. Mm. dem na combat bi metti woon na ci moom ñu gis large domination boo xam ne nii dominé na ko Zos daan ko. Mm. dominé ko aussi Baye daan ko. tey nga xool digganteem ak Balla Diouf. ñu yaakaar ne day changé mais même stratégie parce que dominé waat na Balla Diouf ci biir bëre dox ci kawam. attaqué ko daan ko. donte am na ay coups yoo xamante ni xaw na koo jël ci digganteem ak Balla Diouf mais riposté na te ba mu jàppee Balla Diouf gis nga ne mu demee donc da koo jàpp yëkkati mu të mu kal tànk ba ci suuf mu waat pivoté ak moom dëpp ko mu nekk ko jël bu rëy nga gis day résumé ay kombaam kombaam ak waa. moo moo moo Papa Sow bi foo koy teg stade Léopold Sédar Senghor. très bien nga xool digganteem ak Papa Sow kon kombaam euh, ak Papa Sow ci 23 euh, secondes la. ci 23 secondes la ko daan boobu aussi nga gis mu attaqué adversaire am bi dafa sifflé mu ndox ci kaw adversaire am mm-hmm. donc mayu ko dara bëri ak moom comme ni mu def ak euh, ñeneen ñi résumé waat combat bi amul benn combat ak waa parcelle boo xamante ni duré na deux wala trois minutes. te combat moom Papa mën naa ne gannaaw timikaay bépp mm-hmm. bi ñëwoon ànd ak Papa loxo Modou Lo ma nga ca. ka doon sotti moduloo gàllaaj moo doon sotti Papa gàllaaj la doon def looloo waral ba mu daanee Papa diggante moom Modou moom moom mënuñoo teggeeku mu mën a leer ñoom ñaar xam naa ni ñoom ñaar daal làmb la boo xamante ni sëñ Bas bis bu euh, combat bi demee ba ñu jëm ci stade bi nga xamante ni mooy arène nationale mystique dana bari lool di ngeen gis aada ak cosaan ci làmb. si mu ngi def ay jéego yu rëy mais dafa am rek lu mu war a mën a rectifier rectifier ci digganteem ak Modou Lo pour mën cee génn euh, tey boo xoolee digganteem ak nees bi muy bëre ak nees euh, combat ba li ko ko perteloo bokk na ci endurance parce que bi duré na duré boo xamante ni trois minutes vingt huit secondes mm-hmm. mu dem ba épuisé ci combat bi ba mujjee daanu tey combat ak guy gi bi ko guy gi di daan aussi boo xoolee combat bi duré na deux minutes mm-hmm. deux minutes yoo xamante ne nii tey moom dem na ba épuisé ci biir combat bi soog a daanu donc endurance moo ko perte loo ci digganteem ak nees endurance moo ko perte loo ci digganteem ak guy gi te boo xoolee it ni mu daanoo ci nees la daanoo ci guy gi parce que dem na ba sonn jàpp di tenter action bi mu jàppee gis nga mu xaw a xëcc adversaire am te day jéem a tegal 16 euh, wala non di ko jéem a jongler boog pour def rotation ak moom far mu gunge ko mu tëdd parce que boobu épuisé na guy gi aussi noonu la jël na ay ay risques yoo xamante ni ci combat boobu bëgg kut ko kut jeexal combat bi ba gis nga la ko ci dal dafa dem ba épuisé ba bi mu jàppee guy gi aussi jéem na def la même chose que ba muy ba muy bëre ak jéem a def jéem laa jongle def rotation dëpp la far guy gi aussi gunge ko mu tëdd ñoom ñaar ñëpp dañ koo daan ci biir action donc mu nekk loo xam ne nii war na cee jàngaat bu baax a baax a baax a baax parce que euh, mën naa ne lecture combat il faut mu am ko ci digganteem ak Modou il faut mu am endurance ci digganteem ak Modou Lo lecture de bi mooy tey adversaire yoo xamante ni am na leen ku ci mel ni guy gi ku ci mel ni nees li ko perte loo mooy bi mu ñëwee liirul seen adversaire ba xam tey ñii lan lañ ma ëppale. dafa ñëw comme mu doon def rek arbitre mu dox seen kaw attaqué mais tey boo xoolee digganteem ak tafaatin ca tentee ba rectifié na loolu boobu gis nañ ci moom loo xam ne nii il faut ñu gis ko ci digganteem ak Modou pour mu gagné parce que arbitre sifflé na mu won mu am mu tafaatin ne ko. Euh, dafa mel ni ëppale wu la dara. Mm-hmm. tafaatin bu xawee cokkaas sax mu reculer deux pas dellu siwaat mm-hmm. donc attaqué wu tafaatin mais mu ngi liir tafaatin ba xam tafaatin naka lay déplacé woo fan mooy point faible lan fan fan laa war a mën a jaar. Mm-hmm. lecture de combat boobu moom la ñu bëgg a gis digganteem ak Modou tey Modou Lo bokk na ci mbër yi nga xamante ni ci côté endurance mën na bëre trente minutes. mën na bëre cinquante minutes mën na bëre une de temps. parce que ci coffre bi la gis nañ ko digganteem ak euh, Eumeu Sène seen ñaari combat yëpp donc day bëri ba épuisé mais ci biir loolu day continuer di bëri tey défaut bi mu xaw a am moom danañ ci ñëw bu ñuy waxtaan ci moom mais mais waaw mais défaut boobu noonu ci la Ama Baldé sukkandiku pour mm. exploiter ko pour mën a gagner ki nga xamante ni moom mooy Modou mais il faut mu liggéey tactique mm. euh, tactique sax mu ngi moom mais lecture combat bi il faut mu def ko nga xam ne bu arbitre bi sifflé mu xool Modou comme na mu xoolee woon Tapha kii fan laa war a mën a jaar nan laa war a def ban stratégie laa war a mën a adopté bañ a def arbitre siffle rek mu dox ci kawam. Mm-hmm. beneen bi mooy aussi il faut mu liggéey endurance boo xamante ni combat bi bu diire woon une heure de aussi du ko yàqal dara te bu sonnee mu bañ a jël ay initiative. Mm-hmm. bu sonnee mu bañ a jël ay risque mbër boo sonnee boo xasee jàpp ci ngéem da nga war a récupérer ba retrouver waat sa suuf pour nga mën a continuer bëri mm-hmm. mais boo ko defee mbër moo xam ne xamoo fan la toll ci endurance. nga bëgg koo forcer parce que sonn naa dama bëgg a jeexal combat bi boobaa aussi mën nga am lu la metti. Hmm. sëñ Bass damaa gis ni ñoom ñaar même même euh, même même même catégorie lañ ci làmb xëy na Modou da koo raw rek waaye ñoom ñaar ñoo maase parce que koo bëree ndoog mbapat yéen ñaar yéen maase waaye fi mu toll nii Modou Lo ak Ama Baldé Modou Lo ñiy moom ñëpp euh, ci champion yi kuy ku jël avance am da nga koy xeeb. waaye bu ngeen demee ba ci digg géew nga jox ko cër bi nga xamante ne moom la moom Ama Baldé tamit maa ngi gis loolu ci moom ku koy ku koy yab rek da nga koy yab avant làmb mais bu arbitre ne prix bu yoree nen da koy toj foo nekk dala fay fekk mu doon combat boo xamante ne séentu naa ne dina am xeex waaye séentu naa ne bëre bi tamit dana neex loolu waaw mënul ñàkk a neex bëre ba mënul ñàkk a neex parce que ñoom ñaar ñépp tey ci côté bëre nit ñi xam nañ leen ci xarañteef hmm. ci côté xeex aussi nit ñi xam nañ leen euh, donc il faut mu nekk combat bu neex combat bu neex boo xamante ni day dépendre ci ñaari mbëri kenn bañ a téye sa bopp. parce que ku nekk bu téyee sa bopp rek bu boobaa komba bu soof lay doon combat bu bëri calcul lay doon. mais tey li ñuy xaar mooy mu am gestion de temps gestion de temps mooy tey Ama Baldé euh, wala man bu ma bu ma bu ma amoon am xel bu ma koy dolli. mooy mu mën a mu mën a mën a xool temps bi lan la laaj maanaam bu arbitre di waaj a mu xool Modou Lo kat tey. dama fas yéene bëreeg moom ci combat boo xamante ne nii. war na mën a dem trois jàpp quatre minutes du ma résumé combat bi bu ma gisee nag atu ci trente secondes yi wala ci trois secondes yi mën naa ko exploiter mais à part ça du ma sorxo sorxo combat bi damay jël sama temps période bi nii ba période bii nii dama war dama ko war a déglu période bi ba période bii dama ko war a attaquer. Hmm. xool ba xam ndax. Eh, ñeme na ma wala déet période bi ba période bii nii dama ko war a déglu jéem koo xonetloo jaxase ko public bi yooyu yëpp dafa war a nekk ay stratégie yoo xamante nii dañ ko war a calculer xool temps bi lan la laaj parce que combat royal la boo xamante nii mën na koo indi lu baree baree bari mm-hmm. mais ci fraction de seconde mën na koo ñàkk ci fraction de seconde parce que tey bërëg morom ba bu ñëwee ci biir géew nga summeeku mu summeeku nga gis ne kii que dafa mel ni maa gën a taxaw bu boobaa am na benn esprit boo xamante nii yaa ngi koy avancé. Hmm. ci sa bopp mooy ah kii de maag moom bu ñu jàppantee mu jeex alors que nit ki ni mu mel ci jëm mën na ñàkk mel noonu ci koofu. Hmm. mën na xaw a tuuti wala mën ngeen a tolloo gabari ba nga ko doon sóoraalee bu njëkk dootoo ko sóoraalee ci ci ci diir bi arbitre di siffler combat. Hmm. bu boobaa aussi mën na laa gàllankoor lu baree baree bare. sëñ Diop Bas lañu ñu ngi xamal ci liñ amoon ci waxtu jot na xanaa ñu ma lay di la tàggu rek ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko sama waa ji dama lay namm nag dama lay namm. <laughs> waa ji li ma ne dama lay ñaanal jaamu rek di la tàggoo euh, tàgg boo xamante ni amul tàqali ko comme ni nga koy waxee saa su nekk euh, donc noonu lay demee mais euh, Adama sànq xam nga moom léegi dafa dafa dafa dafa dugg ci biir làmb ji hmm. mu ngi ñuy wax ci franc. franc xam nga ci journal record bi mm. ñu ngi wax naan moom digganteem ak rëg-rëg wala digganteem ak Sa comme ci am jël mm. mais tey euh, loolu yëpp ay combat la yoo xamante ni opportunité la ci franc mm. parce que mbër la moo xamante ni mën na mën na mën na mën na mën na ñëw ci biir euh, VIP yi mën na bokk ci si mag yi mën na dugg ci ñoom te ay buntoom la rëg-rëg buntoom la Sa Thiès buntoom la donc bëri na ñoo xam ne nii mën naa bëri ak ñoom à rëg-rëg ak euh, Sa sax am na mbër yu bëri yoo xamante ni war na mën a bëri ñoom ay ñoom ama neex ñu ngi fii war na mën a bëri ak ñoom ama neex tey euh, war na mën a tàllal loxo euh, ñoom Modou Anta Franc hmm. loolu combat gënu koo neex ba ay jili. xam naa ne de Sa Thiès Garga su ma la woowee léegi dans trente minutes ne la taxaw na bu mu la bett. <laughs> kon neex na leer na naañ de. <laughs> kon neex na ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax nit ñi ne émission bu bees bi nga xam ne ñu ngi koy annoncé aussi mm-hmm. euh, sama question la tudd sama question boobu comme ni muy demee rek mooy tey Euh, lépp lu jëm ci wàllu règlement ci biir làmb mm-hmm. euh, mbër mi war a xam ay règlement li ko yoon may ak li ko yoon xañ bu mm-hmm. fekkee ne mbër mi xamu ko émission bi bu ñu ko démarré semaine prochaine lañ koy démarré bu boobaa mbër mi day def vidéo boppam envoyé ñu ko poser question ñu def ko ci biir émission bi répondre ay question lépp lu jëm ci wàllu réglement mais aussi ñi nga xam ne envisagé nañ un jour nekk promoteur wala nekk manager wala mm-hmm. nekk euh, wala samp écurie te xamuñu fan lañ war a mën a jaar yooyu yëpp dañ koy traité ci biir émission bi bàyyi jiil ñuy sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di ñaari ñëpp jàmm mhm, amin amin kon ñu leen di wax nañ def seen vidéo ci anam bu sell anam bu rafet envoyé ko ci numéro boobu nga xamante ni moom lañ doon def ci baar écran bi su ko defee euh, ñu indiwaatal leen leneen lu bees loo xamante ni lépp ci wasaare làmb ngeen koy amee ndax seen mbégte rek mooy suñu bànneex sëñ Bas ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. jërë ngeen jëf mbokk yi kon noonu laa leen di tàggoo mooy souhaiter joyeux anniversaire sama benn jarbaat. waaw ah, ah, mooy Malick ah, la sama jarbaat la maa ngi yaay ma bokk ndey ak baay Malick Fall ñu koy wax avril doomu Tete Mbaye ma koy siyaar bu baax a baax a baax a baax sama jarbaat boobu nga xamante ni macha allah ak soxna Adja Mbeng Adja Mbeng Mbeng Mboro ma koy siyaar bu baax taalibe sëñ Babacar si boobu moom it ma koy souhaiter joyeux anniversaire yàlla na dund 111 ans sans ordonnance ni consultation jërë ngeen jëf mbokk yi noonu laa leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmp jërë ngeen jëf.